kuréel bi ñuy wax CDSI centre de développement solidaire ak ministre conseil bi ñuy wax Aïssata Cissé amaloon ñetti fanub ndaje fii ci diwaan bu Ndar Géej ci biir loolu ñu profitoo def li nga xamante ni muy lancement officiel di hub ferme intégré et du centre de développement solidaire inclusif fële ci diwaanu Gandon ci bis yi njëkk yi dem nañ seeti ñi nga xamante ni ñoom ñooy seen partenaires yi fii ci diwaanu Ndar Géej ñi nga xamante ni mooy association jàppalante di yëngu lépp li nga xamante ni day jàppale ab ndaw ci xëy dalaloon leen sa ñaareelu fan ba ab ndaje xaatim këyit ñu amaloon ko foofu ca salle de libération bu commune de Gandon ki nga xamante ni mooy Aïssata di conseiller Macky si ñi nga xamante ni ñooy woy laago yi ak xale yi nga xamante ni seen loxo jotu seen gannaaw ñu xaatim ci ay këyit lancé li nga xamante ni mooy ëpp intégré bi ñuy waaj a def foofu nekk benn centre boo xamante ni dañ fa yóbbu ay ndaw jàngal leen li nga xamante ni moom mooy bay ak yeneen xeetu métier ba pare leen fa xëy ki nga xamante ni moom mooy maire de la commune de Gandon ci ay kàddoom nee na li nga xamante ni mooy ferme ëpp intégré bi ñu indi fii ci commune de Gandon am na ci kontaante loolu naa mënoon nañ ko defee Dakar waaye dañoo ñëw choisir fi nga xamante ni moom mooy commune de Gandon. waaw ñun waa commune de Gandon mën nañu wax tey jii si turu département de Saint-Louis yëpp mais si turu région de Saint-Louis yëpp dañuy sant madame le ministre conseillère du président la république bi nga xam ni moom mu ñëw tey jii ak naataangoom yu ma àndal ñu ñu pour lancer fi ben ëpp fi à Gandon ëpp ferme intégré mënoon nañ ko defee Dakar parce que ñom ñep Dakar lañ jógee waye ñëw ba fi bi fii si Gandon di ko fi défé mais wane ni li li jëm ci mbay li jëm ci sam li jëm ci nap ak ci yarum jën ñu bëgg ndaw ñi ak ñi am lago ak jigéen ñi yépp ñu boré leen ci biir li ndax wane ni liggéey am na fi ndaxte am ni ressource bi nit ñaa fi li dess moy dajal leen encadrer leen jangal leen jox leen ay jëmtukaay ba ñu liggéey li nga xam moom leen di jëriñ parce que réew mi pour que réew mi am njëriñ il faut nit ku nekk jëriñ réew mi donc jëriñ sa bopp jëriñ réew mi jëriñ collectivité bi moom lañ fi indi tey kon ñu leen sant di leen ki nga xamante ni mooy ministre conseillère bi nee na projet bi dinañ ko wéyal fépp ci Sénégal pare nañ pour dimbali képp ki nga xamante ni muy jigéen ak xale yi nga xamante ni amuñu fu ñu dëkk ñu leen di wax fàqmaan ci ay formation ak li nga xamante ni moom mooy wutum xëy ñu teewlu ki nga xamante ni mooy ministre conseillère bi. dañoo euh, jóge Dakar. ñëw euh, def euh, euh, pàcc bu njëkk bi si lu ñu nar a def si Sénégal bi yëpp mooy jàppale jigéen yi ndaw yi ak waylaago yi ñu mën a bokk si relance économique bu président Macky Sall prôné te ñëpp di si yëngatu fànn bu nekk donc bu ñu xamee ne sunu gox yi Euh, vraiment am nañu euh, euh, koom am nañu koom mais ñu ñi ko war a ñi def ba koom boobu gën a yokk mooy ñi ñi fay liggéey ñi ñi fay juddoo ñi ñi fay nekk bés bu nekk mooy jigéen yi mooy ndaw yi mooy woylaago yi moo tax ñu indil leen mbay bi sàmm bi ak sàmm jën bi tamit ak loolu yëpp niñ koy wëlbatee ba euh, gox bu nek di nga mën a gis produits yi ci euh, magasin yu gëna a yi muy Dakar ak fenen donc euh, lool yëpp moo tax ñu ñëw dooree ko Gandon dinañ dem ci yenen gox ak goxaat pour gëna a yaatal li ñuy def ni te tay vraiment dama am mbégte ñëw ak sama yenn naataango yoo xam ne yàgg nañu liggéey ci terrain bi Euh, yàgg nañu jàppale ñi ñuy wax couche vulnérable yi ak xale yu nekk ci mbedd mi euh, ñi ñuy wax fàqman yi ñi daw daara yeeg yooyu euh, ñu nekk ci seen sago bopp ci mbedd bi dañ leen di yóbbu benn bërëb bi ñuy wax village pilote di leen jàngal di leen tàggat di leen former tamit te loolu yëpp bokk na si luy defar réew ëllëg parce que bu ñu xamee ne ne réew mi ndaw yi ñoo koy yore ëllëg Euh, si la ñu war a gën a def doole si naka la ñu tàggatee ndaw yi ba ñu euh, moom vraiment réew bi bi mu jógee ci xaatim kayit yi ki nga xamante ni mooy ministre conseil bi ànd ak Amadou Lamine Diop nekk ndaw bi nga xamante ni moom moo dox projet bi si fi mu yegg si ñu dem defi ci visite fi nga xamante ni moom mooy si tool yi bi ñu demee ci tool yi ki nga xamante ni mooy Amadou Lamine Diop mi ngi xamal xeetu bay yi nga xamante ni bëgg nañ ko fa def dina jàppale ñëpp ba ñi nga xamante ni sax dañoo yor laago dinañ mën a bay ci jumtukaay yi nga xamante ni moom lañu fa installé teewlu ki nga xamante ni mooy Amadou Lamine Diop ci ay kàddoom. Euh, ndaw yi ku ne xam na ni ñëpp bëgg nañu liggéey Uh, li gën am jariñ pour dimbali leen mooy fexel ñu jox leen uh, uh, suuf jox leen ndox jox leen intrant ñoom insha allahu rabbi gëm naa ni dañ ko dañ ko teg ci yoon parce que bëgg nañu liggéey te ñeme nañu liggéey maintenant ku leen jàppale rek lañ soxla jàppale bi nekkul di wër di joxe xaalis non non non liñ bëgg liñ gën bëgg mooy que ne mu am des projets comme le disait maître Aline Barra Cissé yoo xam ne dañ leen jox ndox jox leen intrant ñoom ñu mën bay lu ñu dundee boo xoolee particularité ferme ferme intégrée bi aussi mooy que ne ñun dañu décider installer benn ferme boo xam ne euh, dinañ ñu mën a euh, jël ndaw ñi ndaw ñi mën ci di liggéey li ñuy wax roose mais aussi dañuy installer ay euh, ay goutte à goutte ay laser dream comme ni nga ko visité ci biir tool bi parce que mbay mi nekkatul ay ay nekkatul kese. Euh, tànqaroose bokk na ci ba tey mais nekkatul loolu kese aujourd'hui euh, mbay mi àgg na ci ay tijjivaan ay goutte à goutte ay laser drip yoo xam ne way laago yëpp mën nañ ko def donc euh, mënatuñ cee boot di génnee quelqu'un ko xam koo xam nit koo xam ne dafa xaw a am laago bu am nga ne moom mënatul roose mënatul lii di niñ ko installé fii ci Pankesar noonu lañ décidé installé ko biir commune de Diabène Gandiol parce que dootul yàgg daañ seeti waa Ricot même projet bi lañ bëgg a installé à ci Ndiabène Gandiol même projet bi lañ bëgg installé à à à Banda euh, même projet bi lañ bëgg a installé ci euh, euh, à Gantour même projet bi lañ bëgg a installé à Ndoye c'est-à-dire installé ay projet yoo xam ni day permettre jeunes yi euh, couche vulnérable mooy jeunes yi jigéen ñi ak way laago yi mën ci liggéey loolu mooy projet bi nga xam ne bëgg nañ ko yaatal ci Sénégal gépp ak madame la ministre Aïssatou Cissé si ñetteelu fan bi dem nañ seete ji ñi nga xamante ne ñuy jigéen gànjool yi nekk ay jigéen fàkk tëdd ci ay projet yi nga xamante ni bëgg nañ leen ko jàppale lu ci mel ni transformation ak li nga xamante ni moom mooy paañ bi ñuy liggéey ñu mën leen dimbali ba mën koo conserver bu koo jaay fépp ci àdduna bi ñetti fanu visite yi nga xamante ni Aïssata Cissé def na ko fii ci Saint-Louis di ministre conseil Macky Sall lu jëm ci wàllum ñi nga xamante ni ñooy woy laago yi xale yi ak jigéen ñi ci mën leen dimbali ci ay formation ak wutum xëy nekk projet bur njëkk lancé fii ci Ndar Géej nee nañ dinañ ko wéyale ci Sénégal gi yépp ba xale yépp mën cee gis seen bopp